asalaamaaleykum mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV dalati leen ak jàmm ci seen télévision bi feeñal lépp lu nëbbu euh, làmbook njëriñ ni ngeen ko xamee nag ñu ngi seen émission petit matin comme ni ñu koy waxee dañuy am thème de société am thème actualité li ñu actualité nag temps yi mooy weerum koor wi ba tax na nag ñu am fii ci euh, studio bi benn stage bu mag macha allah ma ci ànd ak sama naataango nag doyen Aziz balaa ñuy wéyal waxtaan bi damay jox doyen Aziz Diagne mu nuyoo comme ça ñu ci oustaz door commencé waxtaan bi doyen Aziz ñu ngi lay dalal ci plateau TMS TV di rafetlu li nga ñu fekk si waat ginnaaw bi nga xam ne euh, xawoon nga tawat tuuti daal di dellu si waat tey ñu ngi lay dalal ci TMS TV di la nuyu. mbégte ak kontaante rek ah, vraiment di ñëwaat retrouver plateau bi retrouver aussi personnel bi ak aussi vraiment programme bi nga xam ne nii. maanaam sama absence taxul dara sooxa fii donc defe naa ne loolu bu amee tamit yéen ñii laay gërëm ci seen liggéey ak seen professionnalisme. Oh. macha allah oustaz ñu ngi lay jaajëfal <coughs> euh, Ibrahima donc oustaz Ibrahima Sy euh, ñu ngi lay dalal ci plateau TMS TV di la nuyu. waaw Saliou sunu xarit ñu ngi lay dalal yow tamit di rafetlu bu baax ci émission bi ngeen ñu invité daanaka xaw nañ fee géej hmm. waaye di lay wax ni fi moom sunu sunu télé la. Hmm. di la joxaat kàddu gi ñu mm. bëgg fas yéene ànd ak yéen ci laaj yeeg bañ pare ak mm. doyen Abdou Aziz voilà macha allah comme ni nga ko waxee doyen Abdou Aziz ñu ngi lay dalal di donc na ci ni ngi ñu fekk se macha allah ànd ak sa wér gu yaram mu nekk lu ñu neex trop alors di sant di gërëm nag ki nga xam ne moo di PDG kër gi di Thierno mu lay la xalif général des jën dañuy daal di nag euh, wéyal waxtaan bi tey nag euh, thème bi thème bi mu ngi doon àtte donc wa aji koor donc lan la ñuy àtte ki nga xam ne mooy woor ak li ñuy àtte ki nga xam ne moo woorul donc ci loolu la ñuy jox kàddu gi oustaz mu daal di suux expliquer tuuti balaa question di ñëw kon oustaz nga expliquer ñu tuuti lan mooy àtte aji koor waaw aouzu billahi min shaytan rajim bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi lima nafaal walhamdulillahi lima faala lana rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafaw xawli wajal li waziran min ahli ashkurukum wa ashkuru yaani al muassas mhm. Thierno Moule mhm. wa ila jamii nnas alladina yaxmiluna fi hadi lxanaat mhm. TMS eh, nadu llaha yaani an an an yarfaa yaani ramadan mubarak sukran laka yaa oustaz mbokk yi comme ni ñu ko waxee rek donc weeru koor dafa nekk weer boo xamee ni dafa nekk le mois béni parce que yàlla ci boppam boo demee ci suratu baqara mhm. saar boobu rek yàlla détaillé nag maanaam lan ba lan mooy importance weeru koor joxe na tous les arguments yi nga xam ne mi ngi ci mhm. ñun nag jullit ñi suñ problème mooy xëy na dañ dul comprendre le Coran mhm. mais bu comprendre le Coran je pense que ni yu bari du ça pas la peine sax ñu dugg ci ay détails parce que yàlla leeral na lépp bu demee ci suratu baqara nga dem ci aaya 184 Mm-hmm. yàlla dani banda aouzu billahi min shaitan rajim mm-hmm. yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla mm-hmm. kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun yàlla dani kutiba alaykum siyaamu farataal naa ci yéen koor kama kutiba ala alladina min qablikum comme ni ma ko farataaloon ci ay xeet yi nga xamee ni ñoo leen jiitu waaye lan mooy objectif weeru koor lan mooy bii bi mooy laallakum tattaqun peut-être boo leen wooree ngeen jëlee ci ragal yàlla ragal yàlla mooy mooy objectif ku woor bu fekkee yaa ngi woor te ragaloo yàlla xamal ni koor gi ngay def dangay xiifal rek mais des na moo tax foofu yàlla li tax mu insisté peut-être la'allakum tattaqun mu ni nag du ayyaaman ma'dudaat pourtant bis yi ngeen di woor mën nañ koo compter doo leen woor 40 jours gën gaa néew dégg nga 29 jours jàpp 30 ayyaaman ma'dudaat kon fa man kaana minkum maridan bu fekkee ne da ngaa feebar aw ala safarin wala ngay effectuer benn voyage boo xamee da ngay jóge ci dëkk dem ci dëkk fatiguement boobu la la yàlla di teggil fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar may nan la nga bàyyi ba wér ki feebar may nañ ko mu bàyyi ba wér doo ko woor bu fekkee yow da ngaa effectuer ay ay kilomètre kilomètre fatiguement voyage boobu rek may nan la maanaam voyage boobu noonu nga bañ a woor mais boo demee ba àggaat ci dëkk ba ba adapté ci climat bi nga mun ko fay kon diine dafa nekk loo xamee ni si yusurun diine jafewul ñiy jafeloo diine yëpp dañuy jéem a xuuxal nit ñi rek mais mais a diine añ da diine yusrun diine diine lu lu lu yomb la mm, macha allah lu oustaz euh, ma ñëw ci doyen Aziz posé ko benn question balaa may ñëwaat yow doyen Aziz gis nañu bu weer koor <laughs> jub see rek da ngay gis macha allah sama mbokk mbayeen yeeg moo ko ture ture yi feebar yi daal day jub ñii naan dama am ulcère ñii naan vraiment man dama am estomac loolu noo koy jàngatee fii ci Sénégal parce que gis nañ ne daal bu weeru koor jub see rek feebar yi day bëri waaw xam nga hmm. dafa am ñoo xam ne maanaam sama mbokk faale nii. Hmm. xëy na ñoom dañu ragal koor. <laughs> du dëgg mais defe naa ne yàlla moom moo ñu gën a xam suñu bopp. Hmm. ku nekk la nga la nga mën ak la nga attan yàlla xam na. Hmm. du dëgg am na ñoo xam ne nag taafantuwuñ ko. dafa fekk ne dañoo am gàllankoor. maanaam bu ñu wooree. mën na indi maanaam complication ci seen état de santé. moo xam ci lu leen docteur wax moo xam même docteur bu leen ko waxul sax xam nañ ne lii dafay dafay métti pour ñoom donc defe naa ne loolu euh, bu fekkee mun nga ma ko may ma rebondir ci ay questions yoo xam ne dinaa ko laaj oustaz Ibrahima si tey euh, oustaz léegi yaa ngi wax ne maanaam euh, ki nga xam ne nii par mën nañ ko mën nañ accepter bañ a wooram mooy ki nga xam ne nii dafa tawat mhm. wala ki nga xam dafay tukki mhm. tukki boobu d'abord laa bëgg nga ni ci ay leeral maanaam tukki bi mhm. euh, dañ ko xayma ci ñaata kilomètres lañ ko wax mhm. beneen bi mooy aussi tamit tukki bi maanaam objectif bi tax nga tukki du dëgg def naa ñaar yooyu tam war na mën a leeral euh, maanaam débat bi très waaw donc bu fekkee moom day tukki maanaam bu fekkee tukki boo xam si ci biir réew mi la kooku mun na woor tukki boo xam si ci biir réew mi la te soriwul mun na woor. ah déet ah, maanaam ci biir dëkk bi comme par exemple biir Dakar. oustaz oustaz jógee Saint-Louis dem Casamance ci biir réew mi la ne oustaz. xam nga jógee Casamance waaw xam nga Casamance léegi. dem bu fekkee waaye dafa jël avion mun na gaaw. non ñun kat ci oto la ñuy wax oustaz. nañ nañ nañ maanaam maanaam nañ ñun ci li nga xam ne ni moom la ñu. Hmm. maanaam moom la ñu moom moo jàppandi suñu dund. waaw maanaam nga jógee Casamance. très bien war a dem Ndar. ki jógee Casamance dem Ndar ci réew mi la kooku bu ko neexee mun na woor bu ko neexee mun na bañ a woor mm. mën nañ may nañ ko ko daal may nañ ko ko mm. fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun eh, min ayaamin uxar ah, très bien yaa ngi dégg ndax foofu maanaam yàlla dani maanaam chahru ramadan alladi unzila fi alquran xam nga mm. eh, weeru koor li tax mu am doole parce que alquran bi ñuy jàng ñun suñu téere ñun jullit ñi yàlla mi ngi ko wàccee ci weeru koor mm-hmm. ci kañ ci le dix-septième jour ci weeru koor ci la yàlla wàcce alquran mhm. kon boo gisee alquran weeru koor nga gis ku jàngul sax day góorgóorlu di jënd ay téere di jàng parce que yàlla mi ngi ci wàccee bi ngi ci wàccee alquranu karim mhm. mais ñun li ñuy regretter mooy les musulmans ñoom dañoo foog am na ñu bari dañoo foog ne dañuy bàyyi ba weeru koor doog a jàng alquran déedéet mhm. alquran moom maanaam même bu dul weeru koor da nga ko war a jàng <coughs> parce que al alxuraan parce que mos naa ko fee wax. Mm-hmm. nit ki bu faatoo nañ ko laa ñeenti question mm-hmm. man rabbuka mm-hmm. kan nga doon jaamu ci kaw suuf. bu fekkee na danga naan man de gens laa doon jaamu kii nii ma xujja bu boobaa di nga ko digleel sa borom man rabbuka kan nga doon jaamu ci kaw suuf nga ni allahu rabbi yàlla moom laa doon jaamu ci kaw suuf. muy première question. maa diinuka. quel est ta religion. nga ni al islaamu diini islam et ma religion. muy muy deuxième bi. dégg nga man nabiyuka kan mooy sa yonent nga ni muhammad sa alayhi wa sallam nabi hmm. waaye nag maa ka lan mooy sa téere nga ni alquranu karimu kitaab yi hmm, hmm, kon alquran bi donte sax mu ngi wàcc weeru koor waaye warul yam rek ñu koy jàng ci weeru koor dafa war a continuer ndax faqara'u maa tayassara min alquran la yàlla wax yàlla forcé wul kenn pour mu jàng maanaam ay page page boo mënee jàng ñaari xisib par bis baax na ndax yàlla dañu faqara'u maa tayassara min al-Qur'an loolu la yàlla wax ci alquran voilà macha allah oustaz defe naa ne question doyen Aziz bi des na maanaam ki nga xam ne moom feebar très bien ban façon feebar moo tax ñu ne ko waroo woor ak bu fekkee ne dafa feebar mhm. feebar boo xam ne du wérati très bien kooku c'est définitif nga xam ne mënul woor lan la war a def exactement mais très bien ki nga xamee ni moom dafa feebar hmm. mënul woor may nañ ko mu génnee bu heure ndog jotee day génnee ndog li nga xamee ni maanaam buñ ko joxee ni ku woor mu regg ko bu ko génnee am mel na ne am na yoolu ko woor noo koy xaymaa noo koy xaymoo maanaam ci CFA waaw ci CFA kooku bu génnee mille cinq cent mille cinq cent bu ko génnee mhm. maanaam joxe na maanaam reggal na koo xamee ni si mën a wooroon la mille francs ba mille cinq cent waaw léegi léegi oustaz am na aussi laaj bi defe naa ne loo xam ne maanaam tukki bi nga wax mhm. dama ciy ñëwaat maanaam maanaam tukki boobu laa bu ngeen di leeral mhm. ndax maanaam tukki dem liggéey liggéeyi mhm. wala dem seeti mbokk mhm. wala daal maanaam tukki ci loo xam ne nii xëy na danga dem ay sa coobare bopp waaw ay ndeyeleeg ay xam ma yenn dem cérémonie yeeg yooyu maanaam xeetu tukki boobu lañ bëgg mu leeral tamit waaw xam nga tukki am na ñaari tukki am na fa am ñaari façon tukki waaw am na tukki boo xamee ne si dangay ngay tukki pour pour pour ziyaara ji waaw tukki ak ziyaara ji am na tukki ak caaxaan am na bu fekkee waa ji day tukki tukki boo xamee ne si tukki la kooku may nañ ko mu woor. Ah kooku moom may nañ ko mu woor. bu dee ziar rek lay bu dee bu fekkee ziar la. Mm-hmm. ki nga xamee ne moom day tukki tukki boo am si tukki tukki tukki boo si day caaxaan. Mm-hmm. kooku tey bu fa demee maanaam yóbbu day yóbbu caaxaan bu demee yóbbu caaxaan maanaam def fa loo xam ne si yàlla bëgg ko ko kon ay ay ay ay mbugal da koy da koy dikkal. Mm-hmm. moo tax maanaam ci weeru koor li yàlla wax ci alquran mu ni bu fekkee da feebar. wala ngay effectuer voyage boo xamee ni si sori na lool. Hmm? xam nga sori na trop nga bëgg ci am coono. Hmm. kooku may nañ ko mu bañ a woor. maanaam distance bi kon dina nekk ay kilomètres yi kilomètres. parce que parce que distance boobu waaw tamit bu fekkoon mënoon nañu am au moins xayma bi. xam nga distance bi euh, jóge fii dem Thiès tukki la. waaw waaye jóge Tamba dem euh, Ndar tamit tukki la. xam nga léegi tukki bu ñu ko waxee mooy alwasaa'ilu naq léegi tukki. mun na gaaw mun na yéex. dëgg la bu fekkee waa ji mun nga jógee Dakar di dem Louga kooku mun na woor parce que moyen de transport bi gaaw na mhm. maanaam buñ doon wax tukki ma doon ñi nga xam ne dañ daan jógee daan daan daan maanaam. afala yanzuruna ila al-ibili kayfa xuliqat mhm. afala yanzuruna ila al-ibili kayfa xuliqat mhm. wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudihat maanaam ñi nga daan gis ñuy jël ay war ay gileem ñooñu la yàlla di wax tukki yu yooyu. yooyu nga xam ni mën a mën a durer ay fan. mën a durer ay fan. foofu la yàlla di wax mais de nos jours yaakaar naa ne ki dëkk kees di liggéey dakaar kooku kooku moom dafa war a woor. te mën a nekk ci oto kese kese. léegi al naq naqli léegi nekkatul bati an jiddan bu njëkkoon wasaa'ilu naqli les moyens de transport dafa yéexoon mais léegi tey ku am oto nga am sa 4 x bu baax bu la neexee mun nga wooree dakaar yaa ngi dégg. dem Louga dogee fa loolu falaché yi dara nekku ci. waaw beneen bi may laajte oustaz euh, maanaam euh, jullit bi nga xam ne nii. Mhm. maanaam euh, feebarul. waaye nag maanaam dafa nekk faqiir dafa ndóol ba nga xam ne nii donte sax même bu wooree moom wóoru ko ndax dina am lu mu ndogoo am déet. Mhm. est-ce que kooku maanaam lan la ci diine wax. waaw xam nga yàlla dani wa wa yut'imuna ta'ama ala miski ala miskinan wa yatiman wa asima. waaw mhm. yàlla dani. yéen ngeen fexee di génnee di leen ñam di ko jox maanaam waaye ñàkk ñi. Mhm. et ma gën a situer euh, débat bi fi mu toll nii ñun en Afrique mu sommes un pays pauvre. Afrique <laughs> ñun sax africains yi sax mos nañu koo laaj Cheikh al Islam Baye Niass radiallahu anhu mhm. maanaam africains yi pour ñu dem voyager sax xam nga léegi pour nga dem Màkka def sa quatrième pilier de euh, euh, de l' islam cinquième pilier de l' islam mhm. loolu ça demande des moyens. kon léegi ku amul ay moyens est-ce nga dem Arabie Saoudite léegi ki nga xamee ne moom dem na ba amul lu mu lekk waaw bu bu xamee ne bu wooree day day faatu kooku mu bañ a ndax yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra waaw mm-hmm. xam nga lu tax parce dama dégg yéen borom xam-xam yi ngeen di wax ni yàlla tegul jaam lu mënut laa laa yukallifullaahu nafsan illaa wusaha waaw waaw ma ñëw ci ñun suñ dégg-dégg bu gàtt ah mm-hmm. parce que bu ma wax dama wax sama maas gi nga xam ne seen dégg-dégg maanaam soriwul dañ ne yàlla du la teg loo xam ne mënuloo ko lépp lu mu teg nit ki rek war na ko mën mm-hmm. alors dem nañ ba ci ñu ne tabaski boo ko amul sa wàcc na la mm-hmm. du dëgg looloo tax ma jël allusion ci ki nga xam ne nii maanaam moom kat donte bëgg na woor waaye ngoon xamul fan la ko yàlla di baaxee maanaam yaakaar ko fenn daal en quelque sorte. waaw donc damay rebondir ci question bi. très bien xam nga ñun tey boo ñu ndogu. am na benn ñaan bu ñu faral di wax. <laughs> mooy allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. faghfir li ma wa ma xam nga loolu mooy lan allahumma yow yàlla laka sumtu yaa tax may woor. waaw mm-hmm. te gëm naa la. Mm-hmm. wa ala rizqika aftartu te yaa may wasagale lu may ndogoo. waaw kon faghfir li yaa may wasagale lu may ndogoo. Mm-hmm. faxfir li jégal ma samay bakkaar maa xaddamtu yiitu ma axatu ak yi mucc mm. donc ki nga xamee ne moom moom dafa dogu ni moom moom rek yàlla yow rek yaa tax may woor mm. kooku moom am naa yàqin ni mm. wallahi bu wooree naa et puis jàkka yi ñu ngi fi te léegi te léegi wàllu muamalaat ñu ngi fi mm-hmm. maanaam tey foo dem mm-hmm. ci Sénégal au fond du Sénégal gaa yaa ngi jox jox joxe mais nag xam nga maanaam nit ku lot waaw ajuuz dafa am ñu dañoo lot mm-hmm. xam nga nag am na ñoo xamee ni si sang bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daan na wax naan ittaqu naara wala bi si tamra mm-hmm. da leen génnee sarax donte sax beneen tàndarma nga am nga dagg ko ci digg bi joxe ko sarax mm-hmm. dama ni ñun jullit ni bu doon maanaam comme li ko yàlla waxee ci alquran masalu lazina yunfiquna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabbatin anbatat bi la bu fekkoon ni ñun ñi ngi dimbalante suñ biir dama naan weeru koor boo xoolee aide yi génnee maanaam ñi néew doole mën nañ faa jaar ñoom ñëpp tey am dépense boo xamee ni si mhm. dépense su at parce que chaque jour que jëfee les hommes de bonne volonté ñi ngi génnee ay ñam di ko jox nit ñi comme ni ñuy def Arabie Saoudite di ko def ci yeneen dëkk arab yi waaw Dubaï boo fa demee tey maanaam weeru koor doo gis faxiir day mel na weeru koor faxiir yi ñoom ñooy ñooy am mhm. te Sénégal ni ñuy génnee maanaam ni ñuy génnee ni ñuy joxee ni ni ñuy joxee maanaam baax na waaye nag joxe bi gën mooy nga xam ñan ñoo koy yàlloo mhm. dëgg la miskin yi miskin alors oustaz si kaw loolu ci joxe boobu ngay wax ma jox la benn question très bien c'est-à-dire lan mooy atte ki nga xam ne euh, moom mooy joxe ci weeru koor mooy def social maanaam di dimbale nit ñi ban tuyaaba la ci am waaw très bien xam nga yàlla moom xam nga yàlla yàlla maanaam aati ni yàlla day joxe xam nga mos na mos naa la fee nettali ni la euh, Maulana euh, Maam Abdou Aziz baax ak Maulana dégg nga Baye Niass mhm. donc mos na may mbaxane Maam Abdou Aziz baax mu ni ko mu ni ko sulaalatul xut bi abdullahi waarisahu mu ko yaa yaa doon sax sa yaa may mbaxane rek <laughs> yaa ngi dégg mu ko yaa doon sa sa baay mm-hmm. dem bana ko yow xalifatu cheikhi xaqan duna taxmidi mm-hmm. xaris talamtu li ma aqtatani karaman li wajihi man xalaqat insan min tini xam nga kooku rek la fait que mu joxe joxe rek c'est symbolique mm-hmm. ki nga xam ne moom day joxe kooku yool yi maanaam kenn mënul li ko yalla dig yàlla dig na ko ajjana yàlla dig na ko maanaam dee dem ajjana ki nga xamee ne moom day joxe. Mm, surtout ci weeru koor. kooku yàlla daf ko dig maanaam dee dem àjjana. Mm. parce que yàlla moom xam nga li daloon na Isa ibnu Mariam di di profité sunu mbokk yi nga xamee ne tey bokkuñu sunu diine muy sunu mbokk chrétien yi. toloon na benn jamono boo xamee ne si dafa am ñoo ñu àndoo dañu ko boo bëggee ñu gëm la da ngay def da ngay def prodige maanaam da ngay def kiraama. mu ne allahuma rabbana anzil alayna maidatan min as sama takuna lana aidan li awalina wa ayatan minka warzuqna wa anta xayru raaziqiin mhm. yàlla wàccee ñu une table à manger mhm. jóge ko ci asamaan si jóge ci asamaan taxaw sa taxaw ci plateau bi mhm. xam ko ñun àgguñu foofu ñun àgguñu foofu même sax ñun ñu ngi jaamu yàlla ñu ngi jaamu suñu borom mais àgguñu ñun heure ndogu jot ma maqaama boo xamee ne si da ngay yëkkati sa loxo comme ni ko Isa waxoon allahuma rabbana anzil alayna maidatan min as-sama takunu lana aidan li awwalina wa axirina wa ayatan minka warzuqna wa anta xayra raziqin mais yàlla daf ñuy boole ñoo xamee ni si yaa ngi dégg yàlla da leen di jox kii joxe moom nee nañ même sax tubaab nee na la main qui doon est meilleure que la main qui ne donne pas. waaw waaw. waaw macha allah mais joxe boobu sax laa bëgg hmm. ñu taxaw ci tuuti. parce que defe naa ne oustaz joxe dafa am façon tamit. Hmm. parce que euh, manaam ki nga xam dafa lekk bu suur joxe. Hmm. joxe ñam. est-ce que boobu joxe la. ki nga xam dafa seen bu moo xam ne ni jotatu ko. mu joxe ah, ko mu joxe ko est-ce que boobu joxe la def naa ne aussi façon joxe yi tamit war nga ci mun a taxaw tuuti. waaw ci joxe yi. xam nga ñun Sénégal dañ naan la le Sénégal est un pays de la teranga xam nga hospitalité saa yu xam na li may wax. waaw hospitalité baat bi baatu grec la mooy hostis mooy signifie tu tuer. waaw tey ku la jox rek rey na la. Mm-hmm. te ñun Sénégal gars yi li ñi ñi joxe lu bees bariwul. nit day sol mbubb boo xam si def na ñaari at. wala ah, li li damay sonal ci kër gi ba baa ma jox ko waaye yàlla est-ce que loolu la loolu du joxe loolu xam nga lan la lan laa ko jàppee man hmm. mooy débarrassé wu ci loolu di la xatal sa kër surtout ça waaw joxe moom dafa nekk loo xamee ni hmm. xam nga yàlla ci boppam nee na hmm. yonente bi wax na ci xadis ni afsu salaamu afsu salaamu yéen julli ñi day leen siiwal nuyoo seen diggante waa ngi dégg wasiilu arxaamu day leen jokk mbokk maanaam ba pare way yutu ay mun a taamu dee leen génnee aj dee leen génnee ñam dee leel leen leel ñam di ko joxe boo leen ko defee di ngeen dugg bi ajjana bi salaam ci ci ci ci ci jàmm ki nga xam ne moom day joxe waaw waaw waaw bu faatoo dem ajjana oustaz mooy ñam boobu may wax nag xam nga lekk ba suur mhm. xamoo noo koy def nga ne xaaral ma joxe ko waaw waaw loolu tamit loolu exactement joxe la fekk na lekk waaw ba mu def euh, ba nga suur noo koy def waaw xam nga xam nga loolu waaw loolu loolu loolu lu xel daj la lu xel daj la mais wa nitu yàlla yi hmm. li Ibrahima Dasuuxi waxoon ni kalaamul awliyaa yi las lastu afaham wa ana ana hum hum hmm. nitu yàlla yi ñoom duñ def duñ lekk ba pare di ko génnee hmm, déedéet ñoom da ngay ànd ak dañuy tibb ca la la ñuy lekk tibbal la bool wala nga ñu boo ñu bokk ak bokk ak ñoom très bien waaw Saliou nga may ma ma laaj aussi ñett maanaam benn laaj boo xam ne ñett moo ko ëmb ah, te xam naa ne nit ñu mel ni du toujours nga am occasion leen laaj. Mhm. maanaam ñetti jëf. Euh, nga waxuñu ñu jëf yooyu maanaam seen daraja ak ban moo ci tiyaabo. Mhm. maanaam ki lebal. Mhm. maanaam tey mu mel ni tey man ma am soxla ñëw fekk Saliou daal di koy leb. wala ma ñëw ñaan saaliw ah wala ma ñëw saraxu Saliou maanaam ñett yooyu maanaam sarax. wala maye. Mhm. wala leb ban moo ci maanaam sarax maye ak leb. Mhm. waaw waaw man jàpp naa ni. Hmm. loolu lépp xeetu sarax la. Hmm. parce que lebale. Hmm. da lebale da fay. dañ lay fay dañ lay fay. ki nga xamee ne moom am na aajo boo xamee ni si police xajoon na ca. nga lebal ko. yaakaar naa ne kooku moom dindi nga ko dindi nga ko tuuma. dëgg la kooku moom dindi nga ko tuuma. Mm-hmm. et ci ñett yooyu nag maa fàttali ñett yoo xamee ne si mm-hmm. histoire la xaw na bari. Mm-hmm. dafa am doon ko doon wax benn boroom xam-xam du doon wax jaari ak jaariya jaari ci boppam dafa dafa nekkoon ci diggante soxnaam am doom bi soxnaam amee doom moom mi ngi tudd jaari soxna si mu tudd jaariya bi soxna si amee doom amul woon lum amul woon lu mu dajale ba mën a ngénteel soxna si mu gaa mu daal di génn dëkkam génn pour wuti loo xam ne dina ko mën a dajale pour ngénte def na ci àll bi 30 ans. doog a ñëwaat doog a ñëwaat ci histoire bi maanaam ci histoire bi. dem na ba xaw a xaddi. demam gépp dem na ba commencé aventurer dem na ba def 30 ans ci dëkkam mujj gi bi mu demee ba aventurer dafa fekk wa waa yàlla. gis benn waay rek mu toog rek di waxtu naan ku bëgg ngénte te amaloo ngénte ku bëgg ngénte te amaloo ngénte benn waay fekk ko fa ku mel na yow rek <laughs> ni ko loo tàyyi dee ko def. loo tàyyi loo tàyyi dee ko def. loolu mooy lan nag. dinaa ci ñëw loo tay dee ko def hmm. wax la hmm. yaa ngi dégg hmm. paa bi sax da koo njëkk propose mu ne ko man da am naa baat yu may jaay te baat bu nekk junni laa koy jaayee fekk profité woon na ba na ñetti junni cinq mille quinze mille mu ne ko man da am naa baat yoo xam si bu nekk cinq mill laa koy jaayee daa mel ne paa bi moom xam na nekk ci poosam mu waaye xam waaye góor gi xamoon nañ ne baat yooyu mun na koo jariñ mun ko ah man de damaa bëgg a ngénte mun ko jox ma junni mu jox ko junni mun ko loo taay dee ko def léegi ñaata ñaata moo ko def si dix mille waaw benn mu joxal ko beneen junni bi. Mm-hmm. mu ni ko bul jiite yoon boo xamul. dëgg la. <laughs> léegi mu dese ko bul jiite yoon boo xamul mu joxal ko beneen junni bi mu ni ko bul fajee met ak sa doole. léegi waa ji moom jeexal na quinze mille waaye baat yooyu noonu des na ci xel waa ji comme lootaay dee ko rek mu jékki-jékki rek. Mm-hmm. mu gis benn naar. Mm-hmm. bu am ay ay ay gileem yu bari. mu ngi jiital gileem yi mais naar boobu. xamul fan la fan la giléem mi war a jaar pour naan <coughs> te ñoom ñaar daja nañ mm-hmm. mun ko am ne ay la damay laaj man na damaa bëgg sama giléem yi maanaam jéem a teggi pour pour pour moo continer fekk xam nga am na dafa am lu ñuy océan ak mm-hmm. fleuve mm-hmm. xam nga océan moom ku fa dugg moom yaakaar naa ni fa ngay pare far yàlla def mu dem bay bëgg a xuus de moom parce que gis na ni waaji ak giléem yi te la ko góor ga waxoon ni ko dégg nga loo taay loo taay dee ko def mu mu dem bay bëgg a waa ji mu xalaat li ko góor gi waxoon ni ko ni ko ni ko loo taay dee ko def mu commencé yaa ngi dégg ànd waa ji mel na léegi waa ji da ko employé léegi waaye daf ko employé ni ko léegi da may jàppale ci sàmm bi chaque fin du ma fay la ma fay la junni. noonu ci noonu la am noonu la commencé am liggéey chaque fin du mois ma fay la junni. Mhm. te def na presque trente ans doo ko am ñetti junni. Mhm. mu dem bay bañ a mu bay bëgg bàyyi mu xaaral la góor-góor goo waxoon ko loo tay dee ko def léegi commencé na di di liggéey. Mhm. benn jamono ñu dem. Mhm. moom waa ñu dem ba war a jéggi comme ni ma ko waxee woon sànq ñu war a jéggi fleuve. Mhm. mu jaawale ko géej. Mhm. naar bi ni ko ay la yowoon man de xamoo xamoo nu ñuy def ba ma mën a jaarale gileem yi. moom waa ji moom jaabir moo demoon demoon na bay bëgg a jéggi te bu jéggi woon day. day day des ci géej gi la ko goog da waxoon ni ko bul jéete yoon boo xamul. yaa ngi dégg même ba ci sax ci xam-xam dañ la koy jàngal wala yafal du dagan lahu du ñeel am an yafan la muy jëf firlam ab jëf xataa loolu dafa dafa xam xukmulaay àtte yàlla fii ci jëf ja hmm. beneen bu ñetteel bi léegi maanaam moom ci boppam hmm. mu dem ba mu fàttaliku la ko góor gi waxoon ni ko bul jiite yoon boo xamul naar bi dem bay bëgg a jiite dem naar naar naar bi xuus ak gileem yi fan naar bi des des ci ndox mi léegi kan moom moom gileem jaabir léegi jaabir am na alal léegi nag jaabir bi mu dajalee ay gileem léegi jaabir revanche rek moo moo moo moo nekk ci xel mi mu ni ah comme man am naa alal mm-hmm. léegi ku ma fekkee dinaa demaat dëkk ba ngénte ji ku ma fekk sama soxna dinaa dinaa dinaa ko rey mm-hmm. mu bàyyi ba guddi mu jël ci quelques yëkk yi maanaam ci gileem yi jaay ko solu am am indaale ay ay ay affaire am ci dëkk bi bàyyi ba ay trois heures du matin mu dugg bi mu dugg ci dëkk bi bi mu bi mu fëggee soxna si dañu ko yow la kan bi mu ne man la jaabir dañu ko ah man de jaaro bi ma xamoon faatu na mhm. mu insisté mais bi ko soxna si ibbilee fekk na benn góor mhm, xale góor ci ci ci lal bi mhm, mu dem bay jël jaas yi fekk fekk mu foog ni dafa fekk jabaram dafa amaat beneen waay mu dem bay jël jaas ji bëgg koo rey la ko góor ga waxoon ne ko bul fajee man ak sa dal mun ko kii mooy suñu doom ji ji nga fi amoon moom lañ tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga xam bi mm-hmm. xissa dafa am solo mm-hmm. ndax ndax alquran li muy alquran mm-hmm. ala lépp ngi ci bépp faculté bépp faculté bépp matière bu nit di jàngale ci université <coughs> xam nga université mooy foo xamee ni si dañ fay jàngale lépp alquran nag man ni ma ko définiree mm. université la mm. faculté boo bëgg am na ci alxuraan médecine na ngi ci a ngi ci yaa ngi dégg lépp a ngi ci kon li du li du ci nag bi xajul ci cin bi macha allah xam naa ni dinañ ko gën a préparé gën ko détaillé sukaral laka wa iyaakum euh, xaar ma jox doyen Aziz waaw tàggatoo ma ñëw ci yow waaw xanaa di gërëm di gërëm Oustaz Ibrahima mm-hmm. Mm-hmm. allah xam-xam la xam-xam bi ak ci leeral yi tamit mm-hmm. parce que defe naa ne tey yu mel ni bëgg nañ ko. Mhm. Ah, di koy di koy am. Mhm. ah bon ñun ñi nga xam ne ni xëy na suñu jàng sorewul. Mhm. waaye dañuy laajteel askan wi nga xam ne ñuy seetaan. vraiment di am kontaante ak mbégte bu mag a mag a mag participer encore ci plateau bi Saalum. di gërëm aussi. macha allah alors Oustaz ñu bàyyi la nga waaw comme ni ñu ko waxee rek maa ngi gërëm waa TMS di gërëm sama xarit Saliou yàgg nañ. bis du sama première émission yaakaar naa fii moom sama kër la. di yow tamit doyen ndax. pertinence dafa am solo mm-hmm. ndax parfois di nga dem ci yenn télé mais da gis ni pertinence bi day des mm-hmm. ah, di la wax ni yéen a ngi automatisme bi ngeen am bi ma leen gisee dama foog ni mm-hmm. yéen a bokk sa formation waaye di wax ni la la mag ma waxoon rek xale baax na waaye tamit mag baax na di la wax ni maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla dégg nga jéggal ñu euh, yàlla def suñuy poste dara comme ni ko Oustaz Alioune Sall di waxee di gërëm bu baax ca na mu lay wa dëgg yàlla gis nañ liggéeyam na bu baax ndax fan yi bi ma fi ñëw fi euh, plateau yi melul melu woon nii waaw daawanaa alhamdulilah rabbil alamin macha allah shukran laka yaa oustaz alors ñu ngi lay jaajëfal mu nekk oustaz boo xam-xam xam-xamam màcc na trop ci wàllum diine donc amoon <coughs> mbégte ak kontante di ko dalal fii ci plateau TMS TV ci seen plateau Petit Matin doon ci ànd ak sama naataango doyen Aziz Diagne alors amoon mbégte aussi di ko ànd ak moom ci plateau bi ginnaaw bi nga xam ne xawoon na ab absente dellu siwaat ak wér-gu-yaramam ñuy sant di gërëm yàlla ci loolu alors di sant di gërëm euh, ki nga xam ne moo di borom kër gi di PDG mu Moulay Sow di leen sant it di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéenay safoo di seetaan TMS TV euh, télévision bi feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ di leen jox dig daje ci yeneen Petit Matin